bisimilah.
boobu dañuy tere ñu noonu doyee boobu.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi sunu xutba tey mooy risaalatul yahud ilal muslimin dafa am benn yahud bu bind benn lettre daa di koy adressé jullit yi di ci tiitaru di ci bàkku di kañ boppam yëkkatiku ci torop di wane ñoom yahuud yi fi nu toll tey ak pexe yi nga xam ne fexe nañ ba jullit yi jaar ci mu daal di koy def ab lettre daal di koy yónnee jullit yi moom yahuud boobu mu ne ana yahuudi yi wa aftaxir man yahud la waaye ku koy tiitaroo la ku bég ci nekk yahud la ku bég ci weddi gi ma weddi lislaam la lu tax mu ne alhukmul yawma lana tey nun noo moom atte adduna bi yëpp ñoo ko jël ñun yahud yi ngëpp ko ci sunu benn loxo nooy def nooy dindi ñooy digle ñooy tere ñooy jàppuloo ñooy bàyyiloo nun nooy wax ku dul nun dang noo war a déglu mu ne zaala majdukum yaa muslimin yéen jullit ñi dey bu ngeen amoon daraja it wala ngeen am kattan wala ngeen am martaba loolu day yëg leen ne dañ na la leen seen yonent bàyyiloon muy Muhammad personnalité boobu mu leen indiloon martaba boobu mu leen yëkkati woon moom Muhammad loolu day na ngeen yëg ne yéen jullit ñi dañ ngeen ci bu yàgg mu ne ara aytum maza faalna bikum est ce que gis ngeen sax yéen ñun li ñu def ci yéen est ce que yéen yëg ngeen ne ñun li ñu def liggéey ci yéen mooy fexe nan ba yéen nekkatu leen ay jullit da ngeen di wax rek ne yéen a topp Muhammad ah yéen sax seen bopp bu ngeen duggee seeni biir néeg toog ci seeni kawlal yéen dong ak seen borom yéen sax xam ngeen ne yéen du ngeen ay jullit mu ne masayna fi shawaari'ikum falam yujibuna xaalukum dox nañ ci seeni mbedd dugg ci seeni ëtt dugg ci seeni biir yi néeg toog ci seeni kawlal waay waay yéemu leen waay yéen lan ngeen di tiitoor lu ngeen di wax faal taarifuna maza faal naa ndax yéen yéen yëg ngeen ñun lan lañu liggéey ci yéen bi kulli basata ci simplicité lu yomb nazaana alxijaab an banatikum seen jigéen ñëpp muri nañ leen ba pare ngeen naan ay jullit ngeen yéen ñëpp ana seeni jigéen nu ñu mel tey xool leen seeni jigéen ay jullit la ñuy nuru wala ay yahud la ñuy nuru kuy tontu kan mooy tontu laaj boobu ñun yahud yi fexe nan ba yéen jullit yi seeni jigéen nun ni nu bëgg nu mel noonu la seen jigéen mel kon yéen est-ce que ay jullit ngeen dox leen seeni mbedd ngeen xool seeni mbedd ndax mbeddu islaam la dugg leen seen biir kër yi ngeen xool ndax seen kër yi këru lislaam la xool leen seeni doom yu góor yi ndax ay jullit lañ xool leen seeni doom yu jigéen yi ñoom ñëpp futti nañ leen mu ne naa bàyyi loolu sax moom yahud bi mooy wax ci lettre bi de mu ne naa bàyyi loolu sax naa ñëw ci seen téere bi seen borom jox leen muy Qur'an mu ne téere boobu tey yéen jullit yi fan ngeen ci toll mu ne ndax di ngeen xëy balaal ko ndax yéen a ngi koy dund ndax xam ngeen téere bi li ko tax a jóg ndax yéen a ngi koy jàng ndax yéen a ngi koy jàngal seeni doom yu góor ak yi jigéen Hmm. allahu akbar ab yahud moo nu bindi lettre de moom yahud bi nee na asbahtum rahna isharatina tey jii fi ngeen toll mooy yéen ñëpp ñëpp nag góor ak jigéen mag ak ndaw yéen ñëpp ñi gouverner ñi ñu gouverner ñi jàng ak ñi jàngut sëriñ yeeg taalibe yi mu ne yéen ñëpp ci sunu ndigal ngeen nekk bu nu joxoñee ngeen def bu ñu diglee ngeen def bu ñu teree ngeen bàyyi yéen ñëpp nag yéen ñëpp asbahtum rahna isharatina yéen ñëpp xëy ngeen sunu joxoñee rek ngeen def amul kenn ci yéen ku naan déedéet mu ne nu harrikukum kayfa nasha wa mata shina nu harrikukum dañ leen di yëngal kayfa nasha nun nu mu nu neexee rek nu yëngal leen bu neexee ngeen yëngu ngeen yëngu su neexee ngeen toog ngeen réglé wa mata shina saa yu nu neexee nag lu nu neex rek ñu def ci yéen ndax seen programme mu dund tey yéen jullit ñi ci sunu loxo la nekk nun yahud yi mu ne sadarna ilaykum malabisana bañ nañ ko sax tey ba yéen ñi naan ay jullit ngeen di tiitaru di yuuxu naan man muhammad laa tudd abdallah zeynab fatima mu ne xoolal yére bi ngay sol ndax yére yahud la wala yére jullit la xoolal sa bopp rek sadarna ilaykum malabisana sotti nan sunu yére waame tey yéen moom ngeen def ay modd seeni tailleur moom la ñuy ñaw seeni doom moom la ñuy sol seeni jigéen moom daanaka ñoog sunuy jigéen lu dul tur rek lañ bokk tur ci kaw ba ci suuf ay yahud yu jigéen yu ñuul ñoo fi nekk mu ne sunu yére tey ngeen di sol su leen neexee bu leen naqaree sunuy yére ngeen di sol ñun ñoo leen ko indil tëral leen ko ay programme defal leen ko ay modd ngeen koy sol dara ngeen ci munut mu ne unzuru ila aswaqikum kullaha malabisina xool leen seeni marché seen marché yëpp lu fa fees mu ne sunuy yére ñun yahud yi unzuru ila aswaaqikum xool leen seeni marché kulluha malabisun tafdahu awratikum xool leen seeni marché yi dafa fees del ak yére yoo xam ne su ngeen ko solee seen awra yi nekk ci biti ba pare ngeen langar-langar yi ñëw ci jàkka ne da ngeen di julli teg seen awra yaa ngi ci biti allahu akbar unzuru ila aswaaqikum xool leen seen marché yi dafa fees dell kulluha malabis tafdahu awratikum yére yi ngeen di jaay yëpp ak di ko tiitaroog di ko sol su ngeen ko solee seen awra yi nekk ci biti kenn ci yéen solu yére jullit mu ne war ra'i anna jami'ukum laha mutaqabbil mu ne xam nga nun yahudi nag lu nu kontaan loo mu ne sunu yére yooyu nu leen indil allahu akbar dañuy toog di gis yéen ngeen koy jiiroo nun nu kontaan ngeen koy jiiroo ndeysaan ah allahu akbar ngeen koy xëccoo ñun ñi leen ko indil nu toog kontaan xam ne nun réussir nañ fa pantluunaat assobab bi xasri nazil mu ne xool leen seen xale yu góor yi yan tubéy la ñuy sol yan pantalon pantalon yooyu fan lañ ko takk fan la tubéy yooyu nekk tey xool leen bu baax seeni doom yu góor yi yan tubéy la ñuy sol tubéy yooyu fan la nekk fan lañ ko wàcce ak ñi koy sol mu ne xool leen seen doomi góor yi ñi ci ëpp seeni nopp dañ koo bënn seeni we dañ ko yar emaay ko takk ay chaîne takk ay lam wàcce seeni tubéy mu ne hal taalamuna anna haza sifaat qawmu luutil awail waaye yéen sax yéen jullit yi est-ce que yéen xam ngeen ne loolu loolu ngeen def noonu xam ngeen ñan ñoo ko doon def yahud bay wax de ci lettre bi mu ne yéen seen góor ñooñu seen xale yu góor yooyu bënn seeni nopp jaxase seeni bopp takki lamaki seen wàcce seeni tubé yi xam ngeen leen programme boobu xam ngeen ñan ñoo ko doon dund mu ne loolu day nitu góor jigéen ña ca jamono luut ñoo ko doon def yahud bi moo koy wax de laa taalamuna anna haza sifaat min sifaati qawmi luut al awail mu ne yéen sax seen bopp allahu akbar alquran bi nga xam ne yàlla wàcce na ci qawmu luut ngeen koy jàng guddi ak bëccëg laa taalamuna anna hada al amal min amali qawmu luut al awail yéen sax xamu leen ne ndeke ndeysaan seen doom yi ni ñuy solo mooy na góor jigéen ñi ca jamono luut nañ doon solo tey seen doom yi noonu la ñuy solo yaa lakum min aghbiya tahtafituun waaye waaye yéen a dof waaye yéen jullit yi waaye yéen a nasax waaye ngeen di tàccoo ko tiitaru naan ay jullit ngeen fekk xamu leen ne alyahud saraqu ardana wantakahu ardana irdana wa ayna antum ya muslimun buñ balaa ñuy dee rek ñun yahud yi ñu toog ci sunuy télé toog ci sunuy saal di seetaan ñu dégg yéen jullit ngeen naan wooy jullit ñi sàcc nañu suñu suuf yàq nañ sunuy der sàcc nañ sunu suuf coloniser nannu noo ngay yàq sunu der mu ne wooy yéen jullit ñi fu ngeen ne mu ne fi shawaari tuaakisuuna banaatikum yaa lal suxriya xaalukum adha min alxadid ne xool leen seen mbedd yi nun bu nu neexee seen doom yu jigéen yi ak seen doom yu góor yi ci mbedd yi la ñuy sëy ñun bu nu neexee ñun yahudi nun noo leen programme ba fu nu neex rek ci programme u àdduna même bu fekkee sax dañuy caaxaan dootuñu nëbbatu dañ leen di génn ba ci mbedd yi ba ci tefesu géej yi yóbbu leen ci stade yi yóbbu leen ci dansine yi ndeysaan di leen foloo te ñoom yëguñu ko ko defee nag yéen ngeen toog fale naan woy sàcc nañ sunu suuf woy ñu ngay xotti sunu orma mu ne lii ko ruslu nee na tey yéen jullit ñi seen mbir kenn mënu koo natt ci suufe bi mu suufe ak ñaaw gi mu ñaaw ak torox gi ngeen torox walam yujibuna tafawuqukum addirasi mu ne li gën a yéeme nag bu seen école yu ubbee ba ngeen raa nag ne da ngeen di jàngi mu ne nun yahud yi dañuy ree naan programme boo xam ne ku ko jàng doo avancé doo defar puso doo defar wëñ doo defar hélicoptère doo defar avion munoo bënnub teen dara ngeen mënut programme boobu nun yahudi nun noo leen ko indil bu école bi ubbee rek ngeen rang-rangaloo nag di buuxante di jënd fourniture di daw mu ne ñun yahud ñuy ree lu tax ñuy ree mu ne wa programme bi ngeen di indi ah ñun yahudi ñu ñoo leen indil manhaj boo xam ne mu dil programme buy réeralaate la da ngay jàng ba dee doo xam yàlla doo xam sa boroom doo xam islaam doo xam sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ixwatal iman yaakaar naa leen lettre bi leer na de lii waa ji wax ci lettre bi nii ana kan ci ñun moo ko mun a weddi mu ne tëral nañ leen ay programme yoo xam ne fa asbahtum laa tufakkiruna bi shay lahu ahamiya dañ leen a jàngal dugal xam-xam bu nëx ci seeni xel ba bu ngeen di xalaat sax du ngeen xalaat xalaat bu leer du ngeen wax wax ju leer kenn ci yéen mënta indi lu leer kenn ci yéen mënta wax wax ju jub ndax programme bu bon buñ leen indil wa malana talafisakum talafasikum bi barnaamij mudilla tey seen télé yaa ngi nii nun ñoo ci def suñu programme yoo xam ne day sànq ay nit ku ko mën a weddi seen télé yaa ngi nii ñaata poste télévision ngeen am ñun yahudi ñoo leen indil programme yoo xam ne yéen moom ngeen di seetaan su leen neexee bu leen naxaree programme boobu mu dil la day réeralaate amul kenn ku koy seetaan sax ci lu dul dalay sànq dalay réeral mu ne wala daaya li taqulu man lazi yusgilu tafkirukum jarul sax ngeen toog di xalaat ndaan ndax bësa bësa ngi ñëw di ngeen am ay borom xam-xam jarul ngeen koy xalaat xam ngeen ne nun yahud yi fii ñu leen jaarale ba àdduna bi di jeex dootu du ngeen am borom xam-xam ku leen di génneel ci géej gi courant ku leen di defaral ay bomb ku leen di defaral lu leen avancé loo yóbbu leen ci technologie bu leen sonal seen bopp nun yahudi programme bi ñu leen tëral puso sax du ngeen ko defar ci kaw suuf mu ne fa ab xaw saamitiin xam nga lu nu bëgg ngeen noppi nag tëj seen gémmiñ yi da ngeen a bëri wax noppi leen nahnu nasarna saqaafa assuhubiya bayna banaatikum wa shababikum baada an kuntum atharu umma mu ne nun yahudi noo leen fekk ngeen nekk ngën gi xeet ba yàlla di leen tagg ci alquran naan leen kuntum xayra umma uxrijat linnaas taamuruna bilmaaruf wa tanhawna anil munkar yàlla di leen tagg naan yéen a gën ci xeet wi seeni jigéen fegu kenn du gis seeni awra seeni góor nekk ay jullit ku leen gis seen leen bëgg leen mu ne ñun yahudi noo leen fekk foofu génne leen rocci leen sànni leen ci diggi ëtt bi futti leen ba ngeen set ba ngeen dellu mel ne nun tey génne nañ leen soril nañ leen li muhammad indi woon ba muhammad tey bu ko yàlla indi waatoon ci àdduna day jommi danaan déedéet man du ñii laa fi bàyyi woon ndax nun noo leen changé ba muhammad bu ñëwaatoon tey ci àdduna du leen xàmme wajadna anna lugatakum ajzalu luga fekkoon nañ sax ndeysaan làkk bi leen yàlla indiloon muy làkk alquran nga xam ne ci arab la ko yàlla wàcce tuddee ko quraanan arabiyan tey nu fexe ba yéen jullit ñi alquran boobu làkk boobu xamu leen ci dara da ngay gis ku ubbi téere rek daan ne la muy ñuul ñuul xawma ci dara wa biha taqra'una quran nee na ci làkk boobu nekk làkku arab nga xam ne mooy làkku sayduna muhammad ci moom la yàlla wàcce quran mu nekkoon làkk bu noble làkk boo xam ne mooy làkk gën gi mbindéef nu fexe ba yéen tey xamu leen ci tus lépp soril nañ leen ko ixwatal iman ñu fexe ba ngeen wuute ñu fexe ba ngeen tàqalikoo wa asbahtum tatafaxaruna bi lugatin zaifa nu fexe tey ba ngeen di tiitaroo làkk yoo xam ne kenn xamul làkku lan la kenn xamul ay làkku picc la wala ay làkku sindax la wala ay làkku mbëtt la kenn xamul tey li ngeen di tiitaroo ci ay làkk ginnaaw ban leen sorilee làkk bu noobul boobu sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam indiloon lii benn genn wàll la ci lettre bu yahud yi yahud bi bind jullit ñi aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayrahu muxlisina lahu din walaw kariha alkafirun ibadallah la des ci genn wàllu lettre bi mu ne hukumatukum asbahat la tatawaffar jawan lil ilmi mimma jaala ulamaukum yahrubuna ila biladi algarb mu ne tey tëral nañ leen programme boo xam ne yéen jullit ñi du ngeen fexe ba am xam-xam ndax programme bi ñu leen indil ku koy jàng doo am xam-xam mu ne fexe nañ sax ba yéen ñi nga xam ne am nañu ci rëcc di jéem a xam-xam lu ñooñu dañ leen di coppati yóbbu leen Europe ñu dem eggali foofu seen dund ñu changé seeni nationalité mu ne xam ngeen lu gën a garaaw mu ne ñi mën waxuma sax ñi ci jàng waaye ñi nga xam ne yeneen métiers yi sax ñi ci mën ay football ak i basket ak ña mën yeneen métiers yi sax mu ne dañ leen di coppati may leen ay jabar Europe changé seen nationalité ndeysaan dootu ñu nekk sax ay jullit wala ay africain wala ay sénégalais allahu akbar mu ne looloo tax mi ma jaala looloo tax tey ulamaakum seeni borom xam-xam yahrubun ila biladil gharb ku xam ku am xam-xam rek boo jàngee médecine ba mu fort daan ne fin uti Europe boo waxee nga ne fee duñ ma fay lu bari boo mënoon caaxaan yi sax muy football ak yeneen ak yeneen da ngay dem nationalité ji ndeysaan dëkk foofu dootoo nekk dootoo nangu nekk jullit mu ne nun nii ñu ñoo ko def mu ne ñu bàyyi nag ndeysaan ay xot la yonent bi doon wax min alaamati saa buñ demee ba àddina di waaj a jeex laa yabqa fi l ardi illa alxasaala du des ci kaw suuf lu dul ay xottu gerte ay xottu orange ay xottu pomme ay nit yoo xam ne ay xottu xottu lañ ay nit lañ waaye mbalit lañ ndeysaan mu ne ñun ñi ñun ñoo ko programmé ngeen nekk ay mbalit mu ne ngeen di dund ci kaw suuf dund goo xam ne dund gu xajam la dund gu karaj xam ngeen dund goo xam ne xam nga lu ngeen fi nekkee kaana jaddi kaana abi kaana jaddi man sama maam sama maam sama maam kuy wax au lieu mu wax xam-xam danaan sama maam kenn sama baay kenn sunu xeet sama sama ñun ñoo leen programme ngeen nekk ci loolu kenn dootul wax ba ne Seydina Muhammad nee na kenn dootul wax ba ne yàlla nee na ñun ñoo leen waajal programme leen lan ngeen di wax sama maam rek sama maam ku nekk di fëgg dënnam naan maamam maamam maamam wa antum la takununa shay'an fa nahnu nuhibbukum bi hada mu ne dootu leen tekki dara nun nag ñii leen bëgg ngeen mel moo tax nun nu bëgg leen moo tax nun nu bëgg leen ngeen nekk suñuy waay lam yujibuna an tuwahida al kalima mu ne xanaa seetlu leen leen yéen jullit yi ñaata façon jullit ngeen ñaata façon xeet ngeen ñaata façon jullit ñaata façon xeet ngeen tey ci kaw suuf mu ne te dañu jaaxal ñun kat ñun déggoon nañ ne Muhammad benn diine la indi woon benn islaam la indi woon benn façon jullit la indi woon mu ne tey nag ñun fexe nañ yéen jullit ñi ba ngeen bëri nekk ay façon façon fexe nañ ba seen kàddu dootul be dootul dégg nekk benn dootul neen nekk mukk benn kàddu mukk ci àdduna ndeysaan benn mbokk daf ma yónni ci whatsapp mu yónni ma benn poster benn suura benn photo ñu ne juróomi chinois bu ñu dajee dañuy créer dara juróomi japonais bu ñu dajee dañuy defar oto juróomi américain bu ñu dajee dañuy defar film juróomi français bu ñu dajee dañuy defar dara waaye juróomi jullit bu ñu dajee ku nekk day créer mbooloom juróom lañ de waaye ku nekk danaan man la ba ñu nekk juróomi mbooloo te juróomi nit lañ seen kàddu du dëppoo mukk nee na ñun yahudi yi ñun ñoo programmé lool fexe nañ ba dootu leen dëppoo ci benn kàddu faqad fajjarna masjid li shia wa qulna fajjarahu sunni wa dammarna masjid li sunna wa qulna fajjarahu shii mu ne léeg-léeg ndeysaan ñu dugg ci benn dëkk fekk gaa yi di julli juma ñu ne ñii ñan la ñu ne ñii ay sunnit lañ mu ne ñu exploser jàkka ja ba pare tas ci suñuy information daal ne CIA yee ko exploser mu ne léeg-léeg ñu dugg ci jàkk explosé benn jàkk chia daal ne sunni di ñoo ko def su ko defee ndeysaan ngeen gën a yokk rek di xeex seen biir mu ne léeg-léeg sax ñun ñu dem ci benn hôpital boo xam ne ay jullit lan nu explosé ko ba pare daan ne ay jullit ñoo ko def mu ne dañuy masque ay nit rek daan leen monteel ay sikkim génne leen ci image ay télévision ñu naan allahu akbar allahu akbar fekk xamul leen ne nun la fa taraknaakum hakaza nii lañ leen di bàyyee nag ila yawmil qiyaama nii nii rek lañ leen di bàyyee ila an saalat al harbu baynakum ba ngeen xëy rek nag jëlal seeni bopp seeni yat dugg seeni kër ku nekk di toj bopp moroomam fekk xamu leen ne nun noo leen programme loolu mu ne walam yujibuna tuwaxidukum ala hubbi Palestine mu ne balaa nuy dee ngeen dajaloo naan da ngeen di def ay marche di yuuxu naan da ngeen a bëgg Palestine te loolu kat waxu kese la kenn ku nekk ci yéen xam nga ne da ngay wax rek coow kese la Palestine nekkul ci sa xol waaye nag da ngeen a bëgg a feeñ ci image u télé comme da ngeen di gëj a génn télé ah amu leen ay télé yu bëri bu ngeen génn télé su ngeen bëggee génn télé rek ngeen dajaloo ñu daal di indi suñuy image daal leen di filmer après ñun ñu daal leen koy génneel ngeen ne da ngeen a bëgg Palestine قلنا الفت أن حماس تريد أن تأخذ السلطة mu ne bu ñu demee Palestine ñu ne eh waa Hamas est-ce que xam ngeen ne waa Fatah ñii danoo bëgg a jël nguur gi ñoom dong aaki moo ko suñ demee ci waa Fatah ñu ne yéen est-ce que xam ngeen ne waa Hamas ñii dañoo bëgg yéen ngeen jóge fi ngeen toog su ko defee ngeen commencé tamante dëmm ngeen commencé rayante seen biir nun tamit ndeysaan ñu daal di indi suñuy journal commencé jël seeni information mbokk jullit yi lettre bi yahud bi bind jullit yi ndax jullit yi buñ ko liiree ba pare ana lan lañ ci war a dégg ana lan lañ ci war a jàng ana yan nopp lañ ko war a dégge ana yan xol lan ko war a comprendre lii yahud yi bind jullit yi lii yahud bi toog ci biir néegam ci biir saalam daal di xotti ab kayitam jël xalimaam bind ko ba pare daal di koy posté adresse kon adresse ñu ko ndeysaan ci internet bi nañu liir leen yéen jullit yi nii lan leen def nun waaye nee na fi mu tëjee lettre bi mu ne dëgg-dëgg bu ngeen fekkoon ne ay jullit dëgg ngeen yéen a ngi jàng alxuraan kon ngeen xam ne sunu lettre bi dëgg na ci seen kaw ndax yéen sax yéen a ngi wax ne ci seen alquran jàngoon ngeen fa yàlla waxoon ne wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xata yarudduukum an diinikum in istataaw yàlla waxoon na foofu yéen a ko wax ci seen alquran bu dee téere ba dëgg la gëm ngeen ko yéen a waxoon na yàlla wax na fa yahuud yi du ñu deñ di ñu xeex ba ñu bàyyi lislaam fekki leen mu ne moo tax gis nga bi ngeen bàyyee lislaam fekki sinu ñu tëral leen ay programme ngeen mel nun ni nu bëgg ngeen di solo ni nu bëgg ngeen di lekk nun li nu bëgg ngeen di jëf ñun li nu bëgg ngeen mel ni nu mel di xëccoog ñun lu araam ñun li nu nekkoon mu ne ci lañu xam ne dëgg-dëgg kon seen wax ji seen boroom wax dëgg la waaye yéen yéen a ko comprendre waaye ñun yahudi sax xam nañ ne alquran bi dëgg la ndax ñun suratul xasri suratul xasr jàngal nañ ko sunu doom yëpp mokkal nañ ko ndax wax nañ ko wax nañ leen ne jullit yi lii mooy seen programme ci ñun bun nu jekkoo danañ nu génne fii moo tax ñun saar boobu jàngal nañ ko sunu doom yëpp xanaa yéen sax xamu leen ne garab googu seen yonent bi di wax ne buñ demee ba àddina di waaj a jeex jullit ñeeg yahud yi bu ñuy xeex nga xam ne fu yahud nëbbatu bu nëbbatoo ci xeer xeer bi danaan yow jullit ab yahut a ngi nii nëbbatu ñëwal rey ko ci benn garab dong moo nuy nëbb nee na garab googu nun jëmbat nañ ko tey ba mu fees bi biir Israël moom dong moo fa nekk amuñu beneen budul boobu mu ne yéen sax xamu leen loolu mu ne kon loolu dëggal na seen waxu yonent loolu dëggal na seen waxu boroom waaye kon yéen léegi luy seen mbir lan ngeen di tiitarooti yéen nu nag yéen nooyem fexe nan ba yéen ci jullit yi am ñoo xam ne ay góor jigéen lañ fexe nañ ba am ñoo xam ne ay giin lañ fexe nañ ba am na ñoo xam ne ay lekkatu riba lañ ñoo xam ne ay njaalookat lañ ñoo xam ne dootuñu julli ñoo xam ne dañoo ate ñoo xam ne lislaam la ñuy bañ a dégg ñoo xam ne boo nee Makka ak Arafa ak Madinatul Munawwar ñuy daanu crise kon yéen léegi lu ngeen dese yàlla nu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yàlla na nu yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori ko mbokk julli lettre bi ku ci am tontu vendredi bii di ñëw nga indil ñu tontu bi allahumma ya haadi ihdina siraat almustaqim siraat alladina anamta alayhim min annabiyin wa siddiqin wa sohda wa salihin غير المغضوب عليهم ولا الضالين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله